حنا لربي على اللقاء أو أرحام من mbokki julli di mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci ndigalu xalifatu saahibil faydati tijaaniya xaadimul umma cheikh Mouhamadul Maay cheikh Ibrahima Niass imaam cheikh Ahmed Tidiane Seydi Alioune Cissé imaam ratib bu Medina Baye cheikh Ahmadou Boucar Niang xalif général ba hadratul Boucaria Taïba Niangeen groupe famille maam Ahmadou Boucar Niang radiyallahu anhu ñoo am mbégte di leen yëgal te di leen woo ci seen juróom juróomeelu anniversaire bi ñu amal ñu jàpp ko alxames ñaar fukki fan ci weer octobre 2022 ci médina bàyyi ci kër Serigne Aliou Cissé Niang président ansaaru diin départemental bu Kaolack programme bi nii la tëddee bu ñu xëyee 8 heures ba midi danañu amal njàngam alquranu karim 16 heures ñi dalal gan ñi 16 heures 30 ñi dalal invité d'honneur yi commencé jotaay bi ci zikrullah 18 heures conférence ki def conférence bi mooy Cheikh Moustapha Cheikh Abdoul Karim ñang doom ci porte parole bu Taïba Niangeen thème ba muy waxtaanee fu way dencante yi parrain yi cheikh mouhamadul qouraychi cheikh ibrahima Niass cheikh abdoul baqi cheikh hasan dem alhaaji ibrahima Sakho Taïba ak cheikh salahuddin Cissé di si rendre hommage cheikh tamsir mohamed ibnu cheikh ahmed Boukar Niang radiallahu anhu ak sayda fatmata zahra bintu cheikh ibrahima Niass radiallahu anha mbokk yi wote baa ngi noonu jógee ci groupe famille maam ahmadou Boukar Niang ñi leen yëgal te di leen woo ci seen anniversaire bi ñuy amal at bu jot ren mu di cinquième édition ñi jàpp ko jeudi 20 octobre 2022 ci Medina Baye ci buntu kër Serigne Aliou Cissé Niang ñu ngi ci woo ñëpp. Abdoulaye